Seex Mustafa santal dayop cente yaa fi gën amul ku werente te ka ngaayoo Mustafa Seex Mustafa yaa fi amul ku werente te ka ngaayoo Mustafa bismillahi alhamdulillahi wahdahu wa salaatullahi wa salaamuhu ala man la nabiya baxdahu saydi kulal arabi wal ajami mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi maa ngi leen di siyaat di leen di leen jox seen wàccuwaay bis bu tedd bi nga xam ni seen Ousmane Mbakke di Cheikh Cheikh Amadou Mbakke di waajuram Cheikh Moussa Mbakke jur ko muy Cheikhul Khadim di waajuram ngeen ñëw fii ci màggal Daaru Xuddoos gi ñëw fii ngir feeñal li fi nekk ci wàllu jëm ci wàllu màggal gi ñoo ngi leen di siyaar leen jox seen wàccuwaay. ni ñu ko baaxoo defee rek xam nga màggal moom turu màggal Cheikhul Khadim moo ko moo ko moo ko moo ci joxe ndigal màggal yépp nag eh, am na solo ndax gi mu digle lu rëy la waaye màggal gi nag moom. gox bu ne bàyyi ko na fa Sénégal ba bitim réew ñëw teewee sa màggal bi ndax Cheikh mu Mbacké moo waxoon ni ku fi fanaan fanaan fa nga fa war a fanaanee man Moussa Cheikh Moussa Mbacké juboo naa ak saa borom say bàkkaar jeex na juboo naa ci yàlla moo waral gox yëpp nag. yu feccanti ko ci réew mi bitim réew ak Sénégal yëpp ñu ngi fi teew ngir ci fàttaliku boobu nga xam moo ci deman ci borom bi tabaraka wa taala mu Cheikh Cheikhul Khadim wolof mooy def lu mu xamul wutal ko tur Cheikh Moussa Mbacké mi ko jëkkee def tuddee ko màggal màggalu Daaru Xudóos tuddee ko ak màggalam bi mu ko tàmbalee dem Serigne Cheikh jël ko Serigne Cheikh moom mbiram moo gën a yàgg bi mu ko jëlee di ko màggal yàlla boole si moom yu bëree bëri sëriñ Cheikh am na wërsëg am na xam-xam borom juddu la taxaw waajuram nag Cheikh Moussa Mbacke doon ko màggal ba xëy dem sëñ Cheikh jàpp màggal gi gën koo yokk ñu naa màggalu sëriñ Cheikh waaye màggal murit yëpp la ndax defe naa yi bi sëriñ Saliou Mbacke demee bu yàggul rek dong yëpp ñoo fi daje kon bis bi sëñ Bamba demee ci boromam murit yëpp war a ñëw. waaye nag màggal gi ñëpp ñu ciy ñëw ndax lu sell du bari alxuraan saabu bu tuddee nombre la mu ci teg du du jag walaakin aksara naasi laa ya'lamuuna laa yaqiluuna laa yashkuruuna yàlla lépp ci nit ñi amuñu xel duñu sant xamuñu kon lépp lu bari du sell la kon màggal gi ñëpp duñ ci ñëw waaye màggal sëriñ Cheikh boo ko déggee sëñ Cheikh koy woote ah sëñ Cheikh nag lu ñëpp moom ku ñu ko bàyyal nag loo mën loo mënul. du la Serigne Cheikh màggalu murit yëpp la waaye ginnaaw dañu ko jox nag te ngëneel la nu jël ko nu waa ko Xudoos nii rek la demee. <laughs> waaw kon maa ngi leen sant di leen siyaare di ñaan sëñ Ousmane mi yàlla guddal fanam wax naa ko sànq ni ko yàlla yàlla guddal sa fan la ceeg wér Ousmane borom a juddu la ci wàll néeg ndeyam weema kodd Sall jur yaayam chef de canton la woon waajur mu góor Cheikh Gaynde Fatma mu judd ci diggante boobu nag waaye nag xam fi mu bokk nag mu sàmm ngorom sam personnalité am ñëpp ko amee njukkal waa Daaru Xudoos ak waa Touba yëpp koo xam ne Serigne Ousmane moom sa rafet. président bu gën saa tëddis ci soxna yi ah, ñu na ci yor kàddu soxna yëpp rek di nuyu ñëpp rek di ñëpp di wax ne programme waañ bi ah, ñun ñoo ko jiite soxna Fatou Thiam soxna Fatou Manal mi ngi ci biir waañ bi dëkk Tiwaawan soxna Xadi Touré mi ngi ci biir waañ bi dëkk Thiès soxna Binta Thiam mi ngi ci biir waañ bi dëkk euh, Louga soxna Ngone Mbow mi ngi ci biir waañ bi dëkk Dakar Dakar Payeen ah, ñoom ñëpp ah, képp ku ñu tuddul rek nga xam ne xel doomu aadama la waaye mbokk taaliba yëpp ñu ngi ci biir waañ bi ngir liggéeyal sëriñ bi rek. section yi bari ñoo fi daje tey ci kër sëñ Soumaré Mbacke ngeen fànn fukki section ak juróom la ah, ñu ñëw rek ngir jaayante liggéeyal sëriñ Touba. jaar la ko ci bunt bi Cheikh Ousmane Mbacke kenn faam na ñu di ko ñaanal suñ boroom yàggal ko fi lool lool lool lool Mbacke te ànd ak wér ndax bu ñu bëggee lim section yëpp mën nañoo fàtte kenn waaye sex fukki section juróom daal ñu ngi fi daje booloo ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa jaar la ci buntu Cheikh Ousmane Mbacke kenn faam na ñuy soññee buñ sañee soññee nag suñu mbokk soxna yi la ñuy soññu li ci jiitu ndax yàlla dañoo boole koo xamante ne nii kéemtaan gi yéeme na lool muy Cheikh Ousmane rek gën a faat ma nga xam ne kenn ku ci nekk fi ñu toog koo bi xolam rek moom nga ci fekk ñëpp rek muy góor ay jigéen ñun yàlla boole ñu ci bunt bi ñuy soññee soññee nekk lu métti ndax da nga laa jox xaalis laa jox xaalis nekk lu ñu ñuy leeral soxna yëpp rek nag képp ku ñu laa jox xaalis rek na xam ne ni liggéey bi rek moo tax ñu di ko laaj te ki ñu koy defal jar na ko lool luñ ko defal rek xeeb nañ ko. ñu wax ne soxna yëpp àndandoo nañ ci liggéey bi rek ngir bëgg sëñ Ousmane Mbacké loo leen laaj ñu joxe ko soxna yëpp nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen suñ suñu borom lépp loo xam ne def ko fi ren bu déwénee yàlla na suñu borom may lu ko ëpp ci barke Seydina Mohamed barke Serigne Touba borom bis bi. Cheikh Moustapha santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka nga yoo ci Moustapha.